dans le vif du sujet ah. Euh, euh, il soutient Amadou Ba. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi woon euh, fële ci lancement bi. au King Fahd. waaw waaw maa ngi woon ci lancement bi. d'accord bien sûr. Euh, nan nga expliquer. Mm-hmm. le comportement de de certains. de votre camp. Euh, par rapport ak calomnie parce que moi j'ai été témoin oculaire. calomnie bi ma fa gis. cacophonie bi. sa allait dans tous les sens mel ni ñu bëggoon a saboter en fait la chose ban appréciation nga am si si si loolu waaw toujours rek ci xalaatu defar ndax euh, ñun ñëpp ay doomu aadama lañ te souvent position yi mën nañu wute mais ñun ñëpp le bien fair lu ñu bëgg mais loolu man ni mu koy gisee mooy dans toute organisation parce que lii aussi lu bees la parce que il faut dire que ni Amadou Ba li mu bëgg moom la ay moromam bëggoon et que président soo leen fàttalikoo quand il disait que j'allais choisir un candidat mais il ne sera pas un candidat de préférence ni de sentiment ni d'amitié mais il sera le candidat de la raison c'est parce que en ce moment-là ba mu koy wax Amadou Ba c'était c'était le meilleur profil et il était incontournable mhm. ku bëgg a dajale xam nga nee nañu bennoo dafa tas tas tas tas non tasul mais en réalité ku bëgg a daje bennoo dafa taxaw dafa doog a dëgër parce que il faut la dire boo boo génne woon Amadou Ba nga choisir woon beneen candidat Benno du taxaw les problème benn parti la APR rek ñoom ñoo am problème si biir mais nag APR mooy moteur u Benno Bokk Yaakaar il faut le reconnaître. moo tax Benno moo am problème te ñun te ñun waaw effectivement. te ñu sañoon bu amee problème. nit bu bopp ba amee problème il faut le reconnaître te ñun bu ñu sañoon ñoom dañuy déggal. d'abord seen njiit muy seen président wu parti ba pare nag xam ni ñi lang seen ginnaaw ñëpp ëpp ñu leen compétence parce que ñoom it mënoon nañu gàcce comme ñoom mais ñëpp a tënk seen bopp ànd ak ñoom déglu président li mu wax topp ay diggalu président seen njiit bi am na taxawaay bu war a tax ba ñoom ñu ñu déggal ko c'est-à-dire euh, su ma joxee exemple par exemple Euh, euh, choisir nga benn candidat. Mhm. Mhm. quelque temps après nga commencé tournée nationale. Mhm. nga tuddee ko tournée économique je sais pas whatever ak nu mu ko mën a tuddee. pendant toute la durée ak étape yoo mën a def yëpp. da ngay snobé sa candidat bi ah, nga jël alors que c'était l'occasion de de le mettre en valeur loolu exemple la nga ñëw bu bi mujj bi mooy bi Euh, nga dernier remaniement tout ce qui était proche de lui nga nga dindi leen est-ce que il est pas en train de ramer à contre-courant en fait génne génne jege Amadou ma renforcer la tout dugal euh, dugal ñi ko contre non non faut pas le voir comme ça d'abord fi nga waxee mooy ci tournée bi xam nga Amadou est le chef du gouvernement et que tey ku wax président nga ne Amadou Ba donc euh, c'est son c'est son premier ministre lui c'est le président donc président nekk ci jeexitalu mandat am Amadou Ba nekk prés euh, premier premier ministre donc mu am yu muy assuré donc ñoom ñaar mën nañu bañ ànd pour tourner boobu c'est la même personne c'est le même camp. amul différence su lu baax. man foofu laay waxee. Mm. parce que loolu noonu vraiment ces tournées la ça n'avait rien de poli de de c'était purement politique. qu'on se dise la vérité. donc mu nekk nag euh, deux d'une pierre deux coups. nga mm-hmm. nga nga nga nga nga nga waxal nit ki lu baax. dooleel ko au moins nga nga nga jaay ko Sénégalais yi. xam nga waxal lu baax weesuwul nga taxaw ne dinaa tànn te ki may tànn mooy ki gën ci ñëpp ñi may ñi ma ñi ma. man ci pare boobu nga ci noppi romb na ko sax nuyu ko. non loolu. loolu loolu loolu nit ñi mu dañuy capté benn image bu ndaw amaana ni ñoo ah. génn ci salle bi ñoo jegande woon ñoo nekkoon mais yooyu yëpp yooyu yëpp ça se comprend mm-hmm. mais ñun ce qu'on peut dire en ce moment là aux Sénégalais ce qui est très important permettez-nous de dire au Sénégalais que mm-hmm. mën nañu folli mais dañoo dese mën fal te kenn du seen naaj bi di ko jaawale ak ak mënul nekk